léegi nag noo ngi jox Cheikh Serigne Hadj Malick Sy ibnu Alhaji Abdoul Aziz nu mën nañu ko lool nag bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa maulana rasulillahi wa alihi wa sahbi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi fi ma duggee xat na lool ci man waaye ni maa Malick waxee ci làmmiñu xalifa bi yàlla xam na ne loolu rekk tax ma yëkkati kàddu gi te lu gàtt lay doon maa ngi jóge Paris ci mbaaxu yàlla ak ni ma la mag wottoom diir ba ma fa toog le 15 mars le 9 mars dama gént gis sama papa xalifa radiyallahu anhu mu ngi sol chemise bu weex turki garaam mbubb ak bonnet bi ak médaille yu mu tuuti bi mu daan takk yu verte bi ma dem nuyu ko ziyaara ko tàllal loxo ne ko papa ñaanal ma mu ñaanal ma ba may dem mu ne ma neel Abdul Aziz sama mos Babacar nee na kontaan na ci yow nee ko gis naa taxawaayam te dinaa ko ñaanal lu ma ko fàtte bi ma ñëwee Pape Makhtar Kébé mii wax naa ko ko wax naa ko si Serigne Babacar Abdoul Aziz wax naa la ko Hadj Mansour bi ma seetee ma ne naa dem wax wax ji Serigne Babacar duma ma xaar dem seeti Serigne Abdoul Aziz ma dem gis sëriñ Abdoul Aziz mi ngi nekk ci. Euh, fauteuil roulant boo xam ne bu gri cuir la mbay loo mu baax mii toog di ko puus sëriñ bi kanam ngaa ngi leer moom sëriñ Abdoul Aziz mi ngi mage ma wax ko ko mu ne ma ah Haj malik lii de bichara la bu mag a mag mbégum àdduna la mbégum àllaaxir mu ne ma assi yàlla nañu bokk lépp hada wa billahi tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullah